xam nga lu lu lu lu andi woon ci tawfeex ji nag moom ñi ñi ñoo ko bokk. yéen tawfeex ji nag moom Hizbut Tarqiyyah ñoo ko bokk. ñoom dañoo dañoo am tawfeex rek. dañoo am tawfeex rek. tawfeex sëriñ bi ñu am. tawfeex sëriñ bi rek la ñu am. te yàlla nag da cee def ci moom loo xam suñu borom dafa def ci moom loo xam ne ñëw na néew na ñu ngi ko def ci moom ñu ngi ko def ci moom. loolu moo waral nag. loolu moo waral nag. dañ ko doon liggéey noonu rek. dañ ko doon liggéey noonu rek. bi liggéey bi noppee. bi liggéey bi noppee. moom sax. moom sax. yëg na ko yëgu ko. yëg na ko yëgu ko. dafa mel ne fi ñu toll woon. dafa mel ne fi ñu toll woon. li weesu gisatu ci woon dara. li weesu gisatu ci woon dara. ndax fabu fabu fabu fabu fabu métti bu rëy. ndax fabu bu métti bu rëy. fas yéene gën a liggéey Sëñ Tuubaa. fas yéene gën a liggéey Sëñ Tuubaa. foofu la demee. foofu la demee. nga xam ne yàlla moom day ful jëf. yàlla moom day ful jëf. jëf te jëf na. waaye day fay yéene. waaye day fay yéene. kon yéeneen jooju. kon yéeneen jooju. yàlla da koy boole jëfam jooju. yàlla da koy boole jëfam jooju. fu leen ko jëf. fu leen ko jëf. fay ko yéene. fay ko yéene. kon sa ñaata ngoog. kon sa ñaata ngoog. yéen ñi ma àndaloon nag yéen a des. ñun ñi mu àndaloon nag moo ci des. yéen a bokk tawfeex bi. ñun ñoo bokk tawfeex bi. du ma dolli du ma leen du ma dolli ci yéen dara waaw loolu. leen du dolli ci ñun dara. xanaa xanaa xanaa xanaa lu mel ni yaar. xanaa lu mel ni ñaar yaar. nasu gi moom am na ba noppi. nee na nasu gi am na ba noppi. waaw dama ci bëgg na muy gën a nasu rek. waaye lu mu ci bëgg nag mooy muy gën di nasu rek. da ca des da ca des nag. nee na la ca des nag. mooy am kilifa. mooy am kilifa. bu mot kilifa. bu mot kilifa. suñu yaatu kilifa la woon bu mot kilifa. nee na suñu yaatu kilifa la woon bu mot kilifa. waaye sëñ Youssou Diop mii. waaw waxal nee na sëñ Youssou Diop mii. bu ma gisee sañu at. bu gisee sañu at. damay gis sañ yuusu ci biir. day gis sañ yuusu ci biir. bu ma gisee sañ yuusu. bu gisee sañ yuusu. damay gis sañu at ci biir. day gis sañu at ci biir. yuusoo ngoog. kon yuusoo ngoog. jërëjëf nag moom kenn ku ne. ci yéen. yéen ma ca def nag kenn ku ne ci ñun. am nga loo xam sa bopp. am na loo xam ci sa bopp. am nga lu la lu la lu la indi woon ci am na lu la indi woon ci su tawee. loola nag. moom na nekk ci kanam. na nekk ci kanam rek. kenn ku ne ci yéen. kenn ku ne ci ñun. loolee. loolee. bu dee bu ci kanam rek. na ko teg ci kanam rek. bu mu nangu dara jaar ci diggante. bu mu nangu dara jaar ci diggante. te bu mu bu mu bu mu nangoo taxaw. bu mu nangoo taxaw. bu mu nangoo geesu. bu mu nangoo geesu. na wéy rek. na wéy rek. bu dëggoo rek. bu dëggoo rek. dañ koy wommat. dañ koy wommat. loolu ñàkkul lu ngeen ci xam. ñàkkul lu ngeen ci mos lu ngeen ci ñàkkul lu ngeen ci mos ñàkkul lu ngeen ci xam. nee na ñàkkul luñ ci mos ñàkkul luñ ci xam. yoon waa waaye yoon waa boobu. waaye yoon waa boobu la. waaw ah, jëmmi mbooloo mi moom. waaye jëmmi mbooloo mi moom. na gën a nasu. na gën a nasu. nañ gën a nañ gën a am kilifa te gën a nangu seen kilifa. nañ gën a am kilifa gën a nangu suñu kilifa. ngeen ko defee rek. nee na bu ñu ko defee rek. day day gën di yomb rek. day gën di yomb rek. waaw ndax womatu rek la. womatu rek la. ne ma ko daanaka wax dëgg. ginnaaw ginnaaw dañuy womal nag. ginnaaw dañuy womal nag. te nas bi mi ngi ci suñu nopp suñu bakkan. na nas gaa ngi ci suñu bakkan. na los yu yolom rek. na los yu yolom rek. bu yolomee rek. na los yu waaw bu bu yolomee rek. da nga def li ñu bëgg. da nga def li ñu bëgg. te doo sonn. te doo sonn. kon kat moom dëgg la dëgg. maa ngi sant bu baax. maa ngi sant bu baax mbokk yu baax. ñu ngi sant bu baax mbokk yu baax. sant bu baax a baax. sant bu baax a baax. xool rek sëñ ñoom sëñ Tuubaa. xool ci ñoom rek sëñ Tuubaa. na ma ko daan waxee rek wax naa ko bu yàgg de. na ma ko daan waxee rek nee na wax na ko bu yàgg. moom ay sang laa leen def. moom ay sang la leen def ñu bokkal sëñ Tuubaa ay sang laa leen def. ñu bokkal sëñ Tuubaa ay sang la leen def. moo xam dañu dama dama moo xam moo xam moo xam dama leen a jur. moo xam dafa leen a jur. moo xam wala dañ ma leen a jural. moo xam dañ dañ ko dañ ko leen a jural. ñun ñëpp lay boole. ñun ñëpp la boole di xool seen tubaab ci. di xool seen tubaab ci moom ci ñoom. kon euh, maa ngi sant bu baax. maa ngi sant bu baax. maa ngi sant bu baax. di ñaan bu baax a baax. di ñaan bu baax a baax. taw bi jiw am.